sheytaani rajiim rabbi aawuzu bika min amasaati sayaatiini wa aawuzu bika rabbi an yaxduruun bismillahi arrahmaani rahiim barke borom daarul muxti mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo beeg ziyaara bi ki fi toog toogaay ku tedd ki xadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba di sëriñ Muntaxa Bachir ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootuk sëriñ Tuubaa gépp di nuyu ak a ziyaara ki toog toogaayu borom Daarul Muxti mii sunu bunt ci Serigne Touba muy Serigne ba Anta Niang di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu borom Daarul Muxti gépp nuyoo boobu nag dañ koy teg ci loxol Serigne Amsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke di ziyaare bokk yépp man samay wax du ci bari li may wax mooy murid yi ab communauté la ñu mbooloo lañu ay millions la ñu kenn nit jóg dévier leen tooñ leen loolu yi nag man moom laa bëgg mu saafarawu te yàgg naa koo xeex su fekkente ni Omar Diagne dafa ëpp doole yoonu murit dana nu ko xam man daal lenn rekk laa bëgg mooy la justice muy yoon li nga xamante ni moom lay teg ku tooñ mu teg ko Omar Diagne ndax ba ma juddoo ba tey maag ñi ma mag maa ngi doog a génn dégg ku taxaw ni sëriñ Touba nekkul ci sama xol Serigne tubaa bu nekkul ci sa xol war nga ko mën a nëbb mag ñi ma mag noo ngi doog a dégg ba yoonu murid sosoo ba léegi ku taxaw wax ni sëriñ tubaa li mu bind c'est pas parfait matut dañ ko war a defaraat loolu maa ngi koy doog a dégg ma bëgg nag. nun murit yi nu taxaw ndax li tubaab di di wax ni l'impossible n'est pas murit murit yi tëlewuñu dara la preuve en gis ngeen li ma jàkkaarloo ci ay caméra sëriñ am satu ñeent fukki at ci xatal nañu yoonu murit ci média yi ba sa waajuro Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla na ko sunu borom fayal wax wax ñoom waxoon waaye tey gis ngeen les caméras te lépp ay murite ko moom may sàkku nag ñu takku mbooloo moo xamante ni bii dana nu aar yoon wi dana nu aar dëkk bi dana nu aar njabootu sëriñ Tuubaa gi ndax lima wax ci média yi murit yi tëlewuñu dara dinaa ci joxe benn misaal muy jumaay Tuubaa ji jumaay Touba bi ñu koy tabax Touba amul forage amul ndox fan la ñu doon jëlee ndox mi ñu ko doon tabaxee Cheikh Mahamadul Moustapha yàlla na ko sunu borom fayal moo wutoon ay mbandi simon yu mag bu nawet jotee fu ab déeg taa ci Sénégal mu yi dem wut ay ndab dem root ko ñëw sotti ko ci mband yi bu nooree moom lañu ñu daan tabaxee am na benn journaliste Magalu Touba 1956 reportage bi mu doon def en français bi bi mu jeexalee ma ngay wax ni du ma génn Touba mukk te rendre ma hommage delloowuma njukkal les soixante mille murit booba nee nañu 1956 murit yi soixante mille la ñu woon mu ni ñoom day danaa leen rendre hommage ndax seen tabax gi ñuy tabax pyramide ya nekk Égypte lañ ko mën a méngaleel ak cathédrale yi nekk Occident mu ni moo a murit yi day ñu la nature amuñu ay groupe amuñu ay lenge amuñu ay bur ay ay ay ay li jaxase ciment nu ñu ko waxee yi euh, li ñu def lépp seeni loxo lañ ko defee te loolu c'était en 1956 sept ans après la sëñ Fallou doogale eggale jumaa ji kon li may sàkk mooy Omar Diagne mii daal def li war su fekkente ni daf noo ëpp doole nag nu xam te loolu sax mun te nekk yoonu murit dara ëpp ko doole di sant njabootu Serigne Touba gi nga xamante ni teew nañu ngir lii nga xamante ni yëkkati nañ ko jëme ko ci seen maam am na murit nag sëñ Touba desu ko xulool man damay xulool Serigne Touba damay xeexal Serigne Touba bu jaree joxe bakkan damay joxe sama bakkan ngir Serigne Touba bu ma dee naa dem sawar maa xam kon Serigne Touba kenn du ko xeexal giñ naa ci dara yee borom Daaru Muti Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi muy nekk ci suuf ku taxawoon ni bindum Sëñ Touba mi baaxut dañ koy defar la mu waxoon ni murit buy dox kenn ku nekk sañ naa doon sab sëriñ waaye murit bu tëdd ci ak jaat kooku ni diwee sab sëriñ bu ma noonu jóg du fab aw yat joosi lay fab waaye wallahi alazim sëñ abdoulah tey bu fi ne newoon waa jëmee bañ a tudd aw turam taxaw ni mbindum sëñ Tuubaa baaxul fu mu nekk dana ko fekk maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf jërëjëf